ngir mbégte bi xam sama yaay borom ñëw ba ci man loolee mooy temu téeméer ak fanweer ak juróomeeli édition pèlerinage marial de Popenguine waxtaan tey bi nag ñu koy doore ak ay ñaan ñoom ñu bokk ci comité d'organisation bi doon amal ab ndaje ngir ñaax ziarkat yi nañu xam ne bërëb bu ñuy dem bërëb bu sell la te kenn du dem ci bërëb bu sell ngay def lu la neex donc nañu xoolaat suñu jikko yi te pèlerin bu nekk mën na lu ñëw au moins assister benn messe. ren nag diocèse bu Tambacounda lañ gën a fësal ci bile ziar. te Sénégal dañu am sept diocèses at bu nekk day am diocèse bu ñuy fësal ren Tambacounda lañu fësal. ziar bi nag ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak ñaar ba fan ak ci weeru mai. ziarkat yi nag ñu am nu ngi leen sas. bépp chrétien bu nar a ñëw Popenguine dafa war a confessé wu maanaam dem ci kanam labbe euh, ñaan yàlla pour mu baal la sa baakaar loolu mooy préparer sa xol pour ndaje bi nga war a daje ak sa borom. bile waxtaan nag colin wi bokk na ci ponk yu fa gën a am solo ngir rafetal bërëb. il faudrait que foog ñi nga xam ne ñooy ñëw fii ci ngi xam ni ci bërëb bu sell la ñu ñëw kon nag am naa comportement bu nga xam ne moom nga war a am ci naka ngay solo waaye tamit fexe ba daal di koy jëmmal fi nga xam ne mooy bërëb bii. at bu ne saay suñuy wàcc ziar Popenguine ñoom ñi tënku ci comité d'organisation bi di amal ab ndaje ngir xibaar juróomi étape ya ñu tabb ngir ziar bi mën a yem chapelet ak récital rosaire nekk lu am sulo ci bile ziar pèlerin bu nekk nag war nga motal juróomi étape yi ñu tabb ngir boo noppee ci bile pèlerinage la Vierge Marie Mère de Dieu nangu say ñaan